Bamba barkeb Serigne Saliou ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di rafetlu teewaay bi di leen baalu àq di leen baal àq di gërëm yàlla sunu boroom te it di ko ñaan mbas mi nga xam ni moo lëmbe réew mi yàlla na fi gaaw génn ci barke Seydina Muhammad di nuyu sama naataangoo yi nga xam ne ñoom laa fi fekk ñuy yëngu ci li may yëngu di jiital ci nuyoo bi sama nijaay sama xarit gise pen kàddu yu rafet na te it sa taxawaay rafet na ndax fu aar bi amee lu nu sooxe fu nu gestu dañ lay gis yàlla na nga yàgg di nu taxaw di joxewaat nuyoo di ko teg ci loxo ki nga xam ni mooy musicien bu mag boobu la arrangeur Papis Konaté di jël nuyoo bi di la teg sa loxo nga joxal ma ko sama rakko artistes yi ak sama doom ak sama jarbaat yi nga xam ne ñoo fi nekk di nuyu tout la presse ici présente ce soir di leen xamal ni tey sunu teewaay dara matul ko dara warul ko lu dul ñëw taxaw koo xam ni ci réew mi la juddoo màggee fi yaroo fi di it bokk ci giiru ngéwal di aar di maam Cheikh Mbay mi toog tey dama fi toog place su nijaay toog fi place su artiste toog fi place mbokk maam Cheikh mii ku dugg seen kër di fa gis artiste yu mag ki may njëkk a cité mooy Aïcha Mbay moom mi nga xam ne moo woy xalaas yàlla buur la keneen ki ma ciy teg di njaga mbay bi nga xam ni ci man mii la nekkoon di tëgg sabar maam Cheikh mii tey doon producteur ba may lëmbe réew mi di tëgg sabar ci koñ yi moo doon téye asiko di ko yëngal sama ginnaaw barke Serigne Saliou waaw dafa ma di fàttali dëgg la asiko di ko yëngal ci ginnaaw tey mu doon dem ba nekk sama producteur moo tax bu kenn xeeb kenn ci àddina boo gisee xale yi di jaar ci man yàlla di di teel di leen defal teraanga c'est parce que yéene bu nit ki li am la sànq wax nga ko ci sa parole euh, rafet xol dafa dafa dafa doy waar ndax mën nga produit doomu aadama fayeeku ko xaalis mbaa ngeen ko danga may defal dara mu génne mbir ma du dox parce que yërmande am àndu ca waaye xale yi ngay gis xam ne mënuñu amuñu nga jàppale leen yàlla def ci dugal yërmande ndax yërmande ba nga xam ne moo jëme ci yow li nga def yombul jël sa alal dugal ko ci loo xam ne wóorul na nanga koy jot ndax qu'on se dise la vérité la musique ne marche plus et c'est bu njëkkoon comme li nga ko waxee sànq soraano daf doon jël bale la Linguère

day def carrière dimbali ay doomu aadama jël ay employé ñooñ di na tey teral seeni ndey ak seeni baay donc lu xew ñu ne musicien la ñuy njëkk a tëj c'est pas normal musicien citoyen sénégalais la bu voté jotee dañu def bu rassemblement amee lépp lu ñuy woote ñoo ci njëkk donc da dafa jot ñu jox leen vraiment seeni cër kii nag di sumb lii nan ko jàppale ndax doomu réew mi la mënoon na jël li mu am dem bitim réew mbaa feneen investir ko feneen mm. mais dafa investir pour doomu réew mi jël ay xale jël ay xale jël ñoo xam ne mënuñu dara amuñu dara jël alalam def ci ñoom dugal studio fay ay répétition fay ay enregistrement def clip fay lépp mu fay yàlla rek moo la mën a fay barke Sëñ Saliou man nag label bi yaakaar naa ne maa ci njëkk ndax defe naa depuis six ans ngi nii talumoon sax album ndax dama ne woon vraiment jaratu ko fi may war a jouer maa ngi fay jouer toujours je me produis deux fois par semaine maa ngi def ay émission télévision parce que toujours sama art li ma permettre maa ngi koy jox askan wi maa ngi ci télé yi bu ñu invité artistes yi ma wax li nga xam ni mooy mooy mooy sama expérience ci ci ci culture xale yi nga xam ne maa leen jàppale yàlla rus ci ba tey ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ci man ñoo nekk au devant de la scène maa ngi koy sante suñu borom donc ñëw naa def ak moom album Papis Konaté moo arrangé yëpp ma narcee nag xëcc comme li mu wax ni concurrence warta am ñun nag Sénégal dañu bëgg jogante aawo ñaareel Balla Gaye Modou Lo John Seck ak kan Modou ak kan Viviane ak kan d'accord mais dafa war nekk loo xam ne lu loyal la warta am xaayoo warta am ŋaayoo warta am xuloo warta am xeex mbër yi nga xam ne dañuy dóorante sax bu jeexee dangay gis ku nekk fóon sa moroom donc loolu tànk deñul ci musique bi nu mën a dem duñu mën a dem nan bokk ndey nan bokk baay man de jàmm laa tudd man ñëpp jàmm laa kenn musta dégg salaam Diallo am na ñol-ñol ak diw walla diw ak diw mënoon naa ko def tappetuma de ni mu dëkkee ñaari tali noonu laa dëkkee ñaari tali kenn dàq maa xeex màtt laa gën a mën ci àddina mais dafa jot vraiment que ñu yéenante jàmm am jàmm yàlla mën a am yërmande ci li ñuy def donc ñëw naa indi album bi morceau bi ma génn ko tuddee ko jàmm ak salaam mu ngi ci YouTube bi ñëpp gis nañ ko donc yeneen artistes yi tamit ñu ngi ci donc on te bon vent di la ñaanal yàlla may la fan gudd ak wér-gu-yaram doom nga joo xam ne sa ndey gërëm na la sa baay gërëm na la askanu ngéwal kenn jëppiwu la barke borom Tuubaa mënu nga ñëw de